Tapha Mbeur Adja maa ngi lay ziar. ci loo ne. maa ngi ci jàmm. daa mel ni pare ngeen de. waaw pare nañ bu lii si open press bi la lii ci la bokk. waaw lii moom lépp ci combat bi dañ doon def ay jeu concours léegi gagnant yi la ñu war a jox plateau yi am na yeneen loo aussi. lu ngeen di ñu waaja rek xam ne ñoo ngi ñëw. dal seen kaw waaw aja maa lay bëgg. maa ma xool leket bi. li nga lan la. dañ ma koo dénk. dañ la koo yi la bokk. waaw ci bagage yi la bokk waaw. waaw. Adja maa ngi lay ziar. delloo say verre rafet na. merci beaucoup. toog nga sa toogaay bu jekk. di waajal dimanche. waa waa gis nga. ngay wax Tapha Mbeur. Tapha kon ni mu ko rek jàpp rek daan. waaw ñu tàmm nañ ko ci moom sax. Ada yomb naa daan. lii duñ moom xa dafa moom sax déedéet <laughs> maa wax loolu. am ni maa ngi lay. Babacar delloo gis naa la nga takk xaw ma xorom takk sa lu weex lu xew. dañ maa rek na ma takkal ma takk loolu kese la. yàgg ngeen wax ji bari woon mu mel ni léegi sursi mooy trois wala sax waaw bareetul li ci des daa ni fi ku parewu kon est-ce que pare nga non mën nañu wax bi laa ma ji desee deux semaines léegi ku parewul pare woo te dama lay leeralal maak Ada Fass mu suñoo tëkkwante Ada Fass moo raan bëre di laaj Tapha Mbeur moo daan bëre di laaj Tapha Mbeur Tapha Mbeur toog benn instant na jox leen ma ko jox nañ ko ko jour ci moyen 3 wax amatul jëf moo fi nekk 31 octobre góor du yërëm góor barke borom Touba. lu góor man def góor bu mu ne bu jekkoo Tapha na ko rendi mais maa ne Tapha bu ko jekkoo maa la ko wax. kon yow daa mel ni fi nga toog wóor na. non ñun yaakaar laa am dafa am mbër bii nga gisoon fii daaw jéeg ak bii nga gis tey bokkul loolu rek yaakaar la xam nga di di préparer combat nekk ci ay loxo yu wóor dafa neex. loolu la ñu yàlla defal dañoo nekk ci staff bu wóor Pambay yor ko si côté écrit bi gii yor ko côté Saal macha allah sunu xel daal barki borom Touba yal nañu yàlla defal ndam nañuy ñaan yal nañu ko yàlla defal ta xel dal na. looy wax Modou Roubé. non Modou Roubé sama waay la nit ku baax la ah moom wax nga dëgg man fàtte woon naa ko ndax dafa bëri mbër moom ay Balla Gaye ak ñëppay bërëm mais daal ni ma ko mënee la Tapha Mbeur mënee Ada Fass fuuf lameen rek la ma ëpp ah. ma la ko wax aja Babacar kii mooy Pape Mbaye kii moo yore Modou Lo ca mbër mu ndaw ba roi des arènes léegi ci ay loxoom la Tapha Mbeur ñibbis coach mbër mi nga doon préparé mu war a bëre dimanche tey la jeudi tey la mercredi du moins Tapha Mbeur ci ban étape la ci ban état la toll waaw maa ngi leen nuyu te di euh, liggéey Euh, li ñuy xalaat ne bu ñu ko defee yàlla def mu am jàmm am ndam liggéey nañu ko waaw liggéey nañu loo xam ne daal li ñu yaakaar yëpp def nañu ko daal waaw. combat bi lu koy gagné. li mu laaj mu def ko rek. li mu laaj mu def ko te mu bañ a maye dara waaw. Tapha bi mu ñëwee rek énergie ak léegi am na loo ko yokkal. ah waaw loolu moo koy laaj moom nga koy laaj quoi parce que moom moo ñëw. comme que ba fa ñëw na am lu mu fa fekk am lu fa liggéey moom xëy na dina wax ba xam am na fa yokkute wala déet waaw. moom aada amoo loo ci xalaat pour dimanche pour euh, ci wàllu doole yu mel noonu wala dàq bëre feeñ ci. ah non non non testé nañ ko xam nañ ne moom wax dëgg yàlla macha allah doole ji ñëw na techniquement aussi préparé nañ ko li ci des na mooy bu ñëwee mu appliqué te moytoo juum waaw. waaw loo tuddee moytoo juum. bi mooy bu mu bëri ci lu mu xamul. lu lu muy def na ko na koy leer lu mu ko def lu ko leeru aussi na téye ba te bañ may adversaire bi dara. a bi dara. kon ba dimanche incha allah rabbi. waaw xéewal jaajëf. waaye tàccu leen sama rakk bi waay Tapha Mbeur macha allah laf cat waaye nag yaakaar mino seytaani rajim bisimilahi sante yàlla jul si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu waa parcelle yëpp 1 26 di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ngeen ma fekkal fii muy samay xarit sama doomu ndey nga xam sama combat ñëpp ñu ki nga xamante ne mooy suñu kilifa di suñu grand Ousa 2 xam man sama dugg ci làmb lépp si moom loxoom la jaar sama premier combat arène moo ko dox moo ko wax ba bi ma koy bëre kon tey man su ma amee kilifa si làmb Ouza numéro 2 la dama koy ñaanal yàlla lépp li mu bëgg si xolam moo xam yàlla na ko suñu borom defal mu gis ma mu ñàkk ma gis maa ngi koy ñaanal te sama doomam laay mës di doon ba àdduna di tukki mënu ma am lu ko gën mënu ma am lu ko ëpp ah. moo ma dugal si bëri dóor utal ma combat doxul ma lépp lu ma tey def ba nit ñi naw ma ah. moom naan téye këram saa ma jógee entraînement toog ñu ataaya muy waxtaan del def nii del def nii xam nga di ñaanal daal di ñaanal waa mbëri fi am combat yàlla na yàlla may ndam di ñaanal waa parcelle 1 ba 26 Grand Médine Grand Yoff Cambérène di woo ñëpp ñi nga xam ne ñu may dégg ma leen di woo si combat bi ñu ñëw ñaanal ñu ñaanal seen doom yàlla may ko ndam allah. teel bi lu ko waral tey. waa tey loolu xam rek maanaam tey dafa gën parce que dafa gaaw timis mais du dara da fekk pare nañ ñu waroon def yëpp ñu teel a génn def li ñu war def dem dugaat suñu rux di xaar dimanche jot incha allah rabi ñu ñëw def li ñu war a def yàlla may ñu ndam incha ñu ñibbi si parcelle. waaw dafa tey boo xoolee bëre bi nga xam nga woon bëre mooy te yóbbu nañ ko arène nationale comme li nga waxoon lan bëgg nga dellu si la woon gars loo jógee am fa a jëm te la nga assuré say yi ñoom pare nañ supporters yi pare nañ stade bi ñun amalu ñu njëriñ ñun ñu doon ñu dugg ñu woon pour stade bi làmb la ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si ak jàmm pare na sama adversaire ñëpp ñu ngi def li ñu war def kon dañuy xaar jours yi rek yàlla may ñu ndam ñu indi ndam li parcelle incha allah dama laaj sax Amdi Moustapha sa digganteeg Tafa sa digganteeg Ada mun ne seen diggante amu ngeen ab diggante moom moo la mas a laaj yow da ngay dëggal ne Tapha bu Fass moo la mas di laaj. Ada Fass ak ku la a laaj boo jajeeg moom noo ko war a def. bi mu duggee ci lam ba léegi mi ngi may laaj donc loolu noonu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. mais nag boo tokkee mbër ba fii da ngay ñëw wane li nga war a wane lamb ji yaakaar naa signature ba wax nañ fa liñ fa waroon wax instant yi jëf moo des dañ ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee bis ba ñu jëf yàlla may ñu ndam incha allah yow liggéey nga lu la leer ne actuellement fi mu nekk nii bés ba euh, maanaam moom Ada Fass bu ngeen dajee ci xeex wala ngeen daje si bëre maanaam du yóbbu lu ko neex bu arbitre sifflé du yóbbu lu ko neex incha allahu bare nañ ci côté yëpp wax amatul jëf moo am yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Ada Fass incha allahu rabbi mais Tapha euh, bu arbitre sifflé kuy xeex ak kan mooy bëre. loolu yëpp bu ñu ci bis ba dina ko xam man pare naa li ma war a pare nee naa la wax ji wax nañ ko ci signature ba li ci des rek mooy bis ba jot wax amatul jëf rek a des. Eh, eh. damal Tapha nga dégg aada démb nee na moo la ëpp doole moo la gën a réew moo la ëpp supporter moo la gën a dof ci ay kàddoom. loolu waxam la rek dama ne lool moom jàkkaarloo nañ xam nga li may koy ñaanal rek mooy wér ak tal ak fekkee ba bis ba parce que làmb ji yaakaar naa ñetti fan moom wax moom bari wax la ko waa lépp lu wax ni moo ko ëppale na ko ëppale bañ bëri ba pare mais nee na moom yow yaru la la sant mooy mooy diriger mooy attaquer mooy koñe mooy duma mooy daal loolu yaru moom la concerné li may def moom bu arbitre sifflé dina ko xam mais lépp lu mu wax rek moom la concerné léegi waaw am na solo lool moo tax ñu fonk nii di ñaan yàlla may ñu ndam boo gisee suñu grand Ouza 2 taxawoo ñu nii ça veut dire que am na solo boo xoolee premier combat bi mu bëri si arène nee la moo ma taxaw moo ma ci dugal moo ma wutal lépp kon tey su ma amaatee combat gis ko sama ginnaaw damay xam ne noo làmb ji am na solo léegi am na solo mais dafa am foo nekkoon muy Grand Médine mbooloo nga jogee fa ñëw Rock Énergie laaj naa léegi Pape Mbaye sa coach mu am na yow am na loo xam ne nii def nañ ko ci yow loo xam ne dimanche war na feeñ Tapha Mbeur yan soppeeku la sentir ci yaramam ci côté bëre ci côté xel ci côté dallu par rapport ak bi mu nekkee Grand Médine ak Rock Énergie bi mu nekk tey. waaw damay sant yàlla rek ndax lépp parcelle la lépp ci gétt gi la bokk kon tey dañuy ñaan yàlla Rock Énergie bi ma fa ñëwee taxaw nañ ma taxaw ba nga xam ne ne Pape Mbaye teg na ma coono yu méttee méttee métti écurie maa bëgg combat bi booy mbër yi du ma limee damay juum mbër yi nekk si écurie bi teg ay coono yu métti ci bis ba incha allahu rabi yàlla nañu ci yàlla may ndam bu sedd guy ñu kontaan équipe bi kontaan parcelle kontaan loolu laay ñaan incha allah. fan yi gis nañ surtout Guédiawaye moom dañ koy tudd boo xoolee ñu ubbi saison bi biñ ko ubbee quatre victoire lañ yóbbu suma juumul dimanche ba ca toppaat dimanche bi passé ñu gisaat ñu bowaat victoire bu rëy tey parcel war a ñëwaat ci grand combat war ko seex ak fas lan mooy motivation bi ci côté boobu. waaw ñëw rek jël si ndam ndam lañu indi saison bi incha allahu rabbi képp kuy ngemboo parcelle di dem uti ji incha allah ndam ngay ñëwaalee bu neexee yàlla suñ borom ah. loolu la liggéey ci loolu la ñuy dox ci la ñuy xëy ci la ñuy gont kon moom la ñu gëm te incha allahu rabbi dimanche dañuy jëli ndam indi ko parcelle bu neexee yàlla bu soobee yàlla suñu borom ci xeex wala bëree ci lépp bàyyiwuñu dara combat bi li koy gagné combat bi li koy gagné liggéey nañ ko ba pare incha allahu nañ bàyyi ba bis ba wax amatul mobilisation bi parcelle yëpp a pare bu ngeen gisee fii ni mu demee te tey jour ouvrable la waa dimanche ngeen di comprendre. gars yi nañ combat la lan moo tax ñu yóbbu ko arène risque amul. man gëwuma yooyu. Ah. man li ma gëm mooy xamal la. Ah. ñëw bëre daan ñibbi. risque amul ci làmb xale du jël risque. Ah. xale lu mu def war na koo def nee naa la xale du sonn day xiif rek. te góor du nelaw day noppalu. day noppalu dëgg la dëgg lu mu def daanu bu neexee yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla may tal fekkee lu mu def daanu. mais nga ni góor kenn du ko yërëm góor du yërëm góor. ku jekku sa morom. yey. yey ku sa morom yey. Fallou Ndiaye loo koy wax. looy wax Fallou Ndiaye mi tëgg làmb ji. waaw Fallou Ndiaye ñu koy ñaanal jàmm. waaw di di di ku am question rek sant sama staff. waaw ku si mel ni ñoom Ousmane Diagne. Ousmane Thiam. Papis Ñaama Jibi Gomis Cheikh Gomis ñoom Abdou Gomis di sant ñoom Moualvin Mandiaye Top ah ñoom Zim Tafa Faye Amdi Moustapha borom parcelle ñoom Nijaay Jéggi xam nga Ablaye Ñaan xam nga Niass Teranga maa ngi koy ziar bu baax sama sëriñ sama xarit Niass Teranga combat bi combat la Niass combat Niass dinaa la ko wax dinaa la ko waxaat. combat kombaam la. Ah. waxal Niass Teranga. Niass bi combat la. dafa ne combat sa combat la. waaw di woo ñëpp ñu ñuy ñaanal. waaw ñëpp ñu ñuy ñaanal di woo sama mbokk yi Saalum Saalum yëpp. di leen wax combat bi seen combat la. di woo séeréer yeeg ñëpp mais nit da ngay am sa xam nga gétt. di woo waa parcelle. mbaam nga gétt parcelle dama leen di wax ni combat bi ah. bëréewu ma ko ñoom ñoo ko war a bëre mooy lan nañ ñëw boot seen doom ah. ànd ak moom gunge ko ah. parce que drapeau bu am fii lañ koy indi buñ ñu seedaan parce que làmb dafa soxla jàppale daal maa ngi woowaa waa parcelle yëpp presse bi loo leen di wax presse bi tey ni ñuy ñëwee waa presse bi signature ci face à coono yi ñuy daj yaa ngi dégg ak kii leen ci fekk des fois sax ay jafe-jafe lu nekk dañ ci am ay gaañ ay jàppal bàyyil wala ñëw sax mu war a jël mbër mbër mi buudee tey lan ngeen di wax presse boobu nga xam ne yéen ak ñoom yéen a bokk milieu bi waaw presse bi dama leen di wax mais damay nuyu Marème borom Rena business ak Mouha borom Toba import export waaw di ko nuyu bu baax di ko wax combat bi gaa ngi koy déglu waaw Marème ñu ngi lay yéen yéen presse bi nag ñun amuñu seen fay boo gisee ma teel a génn respecté presse bi la parce que dama ne sama gaay presse bi dañoo bàyyi li ñuy def ñëw jël suñu nañ fexe 5 heures wala 5 heures 30 fu mu jotee ñu génn balaa timis sa jot ñu def li ñuy def ñoom li ñu am ko parce que ñun bu woon yéen kenn duñu xam parce que tey lu ñuy def sans yéen du am valeur malgré làmb ñëpp ko bokk ah. mais presse dañ leen war a jox cër moo tax ñu def li teel a génn jox leen cër di leen sàkku ñaan xam nga di leen wax bu ñu def te neexu leen rek ñu ngi jéggalu te saa su ñu ngi ci lu leen neex parce que yéen ñuy génnee ñun lu ñu def bu ngeen lu neex. li ngay fecc dimanche nu muy tudd. non loolu dama koy nëbb nee naa làmb ji làmb lépp lépp surprise laa wax. lépp surprise la di woo imam Kader Père Galas borom borom xombal sama papa Fallou Mbaye waaw di woo waa waaw waa Ndiassane xam nga sëñ Bamba Kunta combat bi combat la maa ngi woo sëñ Bamba Kunta waa Ndiassane combat bi seen combat la maa ngi sàkku ñaan si ñoom yàlla may ma ndam mais yàlla baax na. ko man sa morom. maa ngi woo waa Jilaas. xam nga séeréer yëpp il di Saloum bi bàyyuma kenn parce que combat bi gars yi ñoo ko bëgg di woo sama yaay mère ami Dioum bàjjanu gox kooku moom yàgg nañoo jàppale yéen journalistes yi aw ma seen fay ku mën sa morom ku mën sa morom yéey yéey